ñuy dalal tey euh, sëñ bi Abdoulaye Dione muy secrétaire général syndicat démocratique euh, liggéeykatu euh, santé ak secteur social bu secteur bu Dantec ñu lay nuyu monsieur Dione. waaw maa ngi leen di fay di rafetlu dalal bi ngeen ma dalal encore une fois. Ah, di di nuyu suñu auditeurs yi ñu déglu yëpp. kontaan bu baax a baax ci dalal gi. jamono ji nga xam ne coow li bëri na ca l'hôpital bu Dantec ñu ne de benn day am benn pàcc benn partie bi nga xam ne dañ ko fa yéene jaay tey ji yéen ngeen jàpp Euh, li ni mel dafa am ci lu mu lalu lu tax ngeen wax wax. waa xam nga xam nga xam nga jaay bi dafa tey xel. Hmm. jaay bi dafa tey xel parce que xel nanguwu ko mënoo am six hectares. Hmm. ba pare ne da ngay jaay trois hectares yi tabax ci yeneen trois rawatina yeneen trois hectares yi doyuñu. Hmm. doyuñu donc war yeneen donc trois hectares yi ñu yor wara ñu ko jaay rawatina loi bi dàq na ko bu ñu demee ci yoon yoon da leen di dàq donc pourquoi ñu jaay trois hectares bëgg a tabax ci yeneen trois hectares rawatina ñun dañoo am projet d' boo xam ne depuis 2012 la ñun personnel bi ñoo toog liggéey ci am suñu architecte c'est ñu créé suñu projet xam nga ne président ñëw na fa en 2014. Mhm. ba ñu pré ko projet mu ne da koy réaliser les images sont là. waaw waaw mu ne da koy réaliser depuis en 2014. Ah. donc je pense que boobu boobu ba léegi dégguñu ko. Mhm. ci quatre hectares lañu ko mën a tabax. donc boo amee ñun am nañ six hectares ñun am nañ hectares yi ñun am nañ xaalis bi pare nañ de madame ñun dañoo pare bu yàgg am nañ projet de établissement boo xam ñun ñoo ci xalaat am xaalis bi financement bi un promoteur sénégalais bu signé ñoom contrat en deux mille vingt boucler le financement quatre vingt douze milliards bu ñu nekkoon suba ñu commencé euh, travaux yi suba suba suba suba suba mu commencé ko. waa léegi nag boo signé ku mel noonu contrat boobu nga wëlbatiku ne da ngay jaay hectare di ñu andil ay plan yoo xam ne ñun ñu nekkoon séminaire yëpp d' accord nañ ne suuf doyul uh-huh. te plan bi kenn xamul lu ñu andil donc madame c' pour ça looloo tax nag suñu xel tey ñu waat ne ni ñuy tabaxuñu am na leneen lu ñu bëgg uh-huh. loolu rek ah mais madame loo rek la ah. Uh, kon daal da ngeen jàpp ne ajoowul uh, dëgg ci suuf si pour tabaxaat. non am nañ solution. le uh-huh. financement est la l' argent est sur dès demain euh, pour le promoteur mën na commencer j'ai tous les documents te dinaa ko génne dès demain. le promoteur wan ngeen ko président mu ne mën na koo defar wala sax dina ko defar. lan moo soppeeku ci mbir mi ngeen jàpp. waaw non parce que dañoo dem ba ci biir bëgg leneen rek dañoo dem ba ci biir rek soxla suuf si yow xam nga leen ak suuf suuf si rek lañ soxla. ah ñu nekk ci ay nga baal ma terme mi ñu nekk ci ay deal rek ah à la limite. parce que mënuñu am six hectares ñun nous avons six hectares deux hectares ñun ñoo ko moom patrimoine national la mm-hmm. am nañ projet d'établissement qui date de 2012 mm-hmm. am nañ financement pare nañ ñun ñun pare nañ suba suba mën ñu tabaxal le promoteur est déjà sur l'argent est déjà sur place c'est fini finance euh, le le le fi maanaam financement bi mat na léegi lan mooy problème moo damay laaj askanu Sénégal ñoom lan mooy problème ñoom nañu àtteeg état bi. ñu dégg leen euh, ngeen ci wax. Ah, boobaak léegi ah nag madame euh, damaa jaaxle de jaaxle woo hmm. ñu dégg leen boobaak léegi ngeen di wax monsieur Dione. ñu bëggoon a hmm. xam ndax xeex bi nga xam ne yéen a ngi ci taxaw boobaak léegi ndax yéen dong yéen a ci nekk wala seen morom syndicat yu nekk ci santé bi yëpp dañ leen cee fekk si. waaw xam nga ñun dañuy am collectif pour la défense dañoo créer collectif pour la défense et la sauvegarde de l'hôpital Aristide Le Dantec pour yaatal ko pour ñëpp mën cee bokk parce que nu hôpital Aristide Le Dantec askan be ko moom te ñi fi ñëw ñëpp seen loxo jotul seen ginaaw mm-hmm. donc hôpital bi mu ñu seetaan hôpital bi disparaître duñ ko nangu tey duñ ko nangu ëllëg moo tax ñu créé collectif boobu pour la sauvegarde de l'hôpital Aristide Le Dantec hôpital Aristide Le Dantec nag buñ ko waxee mooy premier hôpital bi jiitu ci Afrique de l'Ouest donc symbole c'est un hôpital boo xam ne mythique la donc hôpital bu mel ni boo ko amee nga xam ne référence royukaay la école la centre la CHU la mm-hmm. recherche euh, soins enseignement donc hôpital bu mel ni boo ko amee mais da ko war a sàmm da ko war a aar xel sax nanguwul ngay jaay trois hectares a gis nañ fi Covid bi dem nañ fi hôpital Fann hôpital Fann tey bu fi réservé amul woon bu fi amul woon je pense que professeur Seydi du fa du du du du du du fa élargir ses tu fa am quartier mm-hmm. Mhm. donc réserve boobu dañ ko fi bàyyi woon moo tax mu am fa loolu donc je pense que santé day évoluer man mënu ma nangu état bu mel nii nga daan da ngay jaay suuf hôpital non madame sincèrement xel nangu. et justement ci dëkk bi nga xam ne tey euh, lii di faj mi dafa sooxe parce que nag plateau médical bi ñu wax ko faju fi metti na euh, ndax yoon la ñuy jaay ay suufu hôpital. du yoon du dëgg du yoon. Hmm. un état loolu day war a ne day war a ne peut-être loolu du seen priorité. santé du seen priorité parce que war nañu xalaat leneen lu jaay hectare hôpital ñun acteur santé yi sax ñoo ko dul nangu parce que la santé évolue day dox. d'accord d'autres d'autres pathologies dina fi am donc suuf soosu tôt ou tard dañ koy soxla donc nañ bàyyi suuf si. Mm-hmm. fu ñuy jaay nañ dem xool feneen fu ñu jaay. ñu bàyyi suufu hôpital. comme ni ma ko waxee sànq yéen a ngi ci xeex bi boobaak léegi lan mooy doonu ëllëg justement seen taxawaay. waaw suñu taxawaay nee na leen dinañ comme ni ma la ko waxee collectif bi ñëpp ci bokk dañuy organiser ay assemblée générale organiser ay sitting devant la porte de l'hôpital def une grande marche nous nous avons prévu euh, organiser une grande marche nationale nga xam ne ñëpp ñu bokk ci collectif bi ils seront représentés euh, dinañ ñoom ñëpp dinañ ñëw ci marché bi mm-hmm. bu ko defee ñu wan état bi ne hôpital Aristide Le Dantec patrimoine national la mm-hmm. waaw askan bee ko moom te ña fay ñëw madame seen loxo jotu seen ginnaaw ñun boo see ñuy wax ñooñu rek tax ñuy wax de mm-hmm. voilà yàlla tax ñooñu rek ñoo tax ñuy wax parce que ñun xam nañu hôpital xam nañ ña fay ñëw mm-hmm. donc hôpital bu gis waree tere ñooñu ñooy loru. dëgg la waaw donc ñooñu te ñooñu ñun ñoo leen war a taxaw. d'accord xeex bi loolu rek ko waral. mais gisoo ne dañ fee bëgg a jëlee hôpital bi. waaw loolu lañ bëgg xam nga la moo tax xel nangu loolu. Mm. wax naa la ko léegi dama am dama am six hectares. am projet d'établissement man pare naa bu yàgg l'architecte est sénégalais le promoteur est sénégalais expertise nationale bi moom moom moom moo feeñaat fii madame compétence am na ci dëkk bi de mhm. architecte bi c'est un sénégalais le promoteur c'est un sénégalais mhm. donc pourquoi ñuy indil ay espagnol ñoo xam ne xamuñu fu ñu jóge ñun pare nañ am nañ six hectares quatre hectares nga mën a tabax ci projet d'état bi financement bi boucler nañ ko mhm. mais madame ku bëggul jaar ci yoon boobu mais da nga naan kii dafa soxla sa suuf Mm-hmm. ku bëggu jaar ci yoon boobu da naan kii am na leneen lu mu bëgg. waa am na am nañ leneen luñ bëgg loola tax nag ñuy xeex nañ loolu duñ ko nangu tey duñ ko nangu ëllëg ñun am nañ promoteur boo xam ne fina taxaw na quatre-vingt-douze milliards la moo dem financement bi hmm. et puis remboursable selon les recettes générées par les par l'hôpital en vingt ans hmm. hmm. BOT sous forme de BOT comme ce qui se passe avec EVH nga xam ne il est payé selon les recettes de l'hôpital pendant vingt ans c'est un Sénégalais quatre-vingt-douze milliards l'argent est disponible sur place dès demain il peut commencer les travaux mais le problème se trouve fan la problème nekk kon mm-hmm. te am nañ six hectares ñu jaay ñett ya ñu bëgg ko jaay parce que duñ ko nangu de d'accord xaw ma jaay nañ ko xaw ma jaay mais loolu on va pas l'accepter de. d'accord dañ ko non non bu yaboo ñu génnaat ci loolu de. parce que on ne va pas alalu askan bi la askan bi yëpp ay jóg. waaw ah, askan bi yëpp ay jóg. monsieur Dione tey seen ministre bi mën naa wax ne si yéen la bokk. médecin la spécialiste la xam na réalité euh, secteur bi ndax jéem ngeen a euh, ut nu ngeen waxtaaneek moom euh, mu daal di moom it yóbbu kàddu gi ci kanamu président yóbbu plaidoyer bi en quelque sorte. waa xam boobu léegi nag jotuñu waxtaan ak moom parce que moom xam nga bi mu ñëwee yàggul. mais am nañ ci yaakaar comme moom docteur la ci kër gi la bokk def naa ne warul mën a nangu ñuy jaay trois ectares yooyu mhm. waaw moom ci boppam waru ko nangu waaw moom ci boppam moo war a président dëgg xamal ne ko ne la santé évolue day dox président nag mën na dañ ko induire am na est-ce que dossier yi may wax yi ma yor yëpp est-ce que président am na ko ah. euh, donc je pense que moom kon wonoon président en non en 2012 image wu image bu kii bi la ñu voilà maquette bi mais pour financement bi la d'accord d'accord pour financement bi est-ce que président est au courant que y a un Sénégalais qui signé un contrat kon jàpp nga ne yorul bonne information bi ah man loolu laa mën a gëm ah jusqu'à la preuve du contraire man loolu laa mën a gëm la ne kaay ma jàppale la moom gisuma lu ciy metti voilà voilà man man man man loolu la moo tax ñu ngi koy interpeller encore une fois président de la République ñu ngi koy interpeller peut-être il a été waaw peut-être bu gisoon contrat boobu peut-être dina réagir te gëm bu bu gisee contrat bi dina réagir parce que c'est un sénégalais c'est l'expertise nationale le promoteur est sénégalais l'architecte est sénégalais mm-hmm. donc gëm président bu gisoon document yooyu bu gisoon contrat boobu dina dina dina delluwaat ci ci expertise ci nationale wax si seen collègue yi nekk Tivaouane ñi nga xam ne boobaak léegi yoon nañ leen teg loxo euh, ndax euh, incendie bi amoon ci hôpital ba tey justement boobaak léegi euh, ñooñu la ñu ngi ci loxo yoon tey nit ñu bëri génn nag nee nañ leen bàyyi. waaw waaw ànd naa ci xam la moo tax ma ànd ci ñooñu defuñu dara xam nga ne sage-femme place am du prison dañu waxante dëgg nag. sage-femme ak infirmière aide infirmière le corps paramédical seen place de prison rawatina affaire bi incendie la mhm. defe naa ne sage-femme du électricienne dañoo am te dëgg lakk fu mu jógee xam ne loolu yoonu corps paramédical newu ci nag bu ñu waxantee dëgg rek te yàlla rek tax nag voilà yow loolu yoonu par corps paramédical nekku ci liñ ne li ñuy wax nee nañ newuñu woon ci salle mais salle boobu buñ fa nekkoon exemple laa la fa nekkoon mhm. bu ñu fa nekkoon ñoom ñëpp dañuy dee. kon lépp day gën a yokk mais day yokk ci jigéen xanaa ñoom dañoo war am yërmande sax ci jigéen. Hmm. ñëpp xam nañ ne explosion explosion bu dee boo dee yow góor sax tam nga daw ça comme tuma laaj jigéen donc je pense que foofu état bi day chercher ay bouc émissaire ñu mu tuumaal rek lay wër mais moo la gën a xam ne rapport bi yoonu sage femme yooyu newuñu ci moom nag tàmm na lii problème amee ci secteur bi rek yàq na secteur politisé na ko ba yàq ko problème amee rek mu ne ñun la mu ne corps paramédical bi la je pense que ce qui s'est passé à Louga moo feeñaat Tivaouane moo feeñaat fépp. yaa ngi wax waxi rapport lu nekk ci justement rapport yooyu. mooy rapport bi dafa leer rapport bi dafa incriminer tout euh, installation électrique moo baaxul. Hmm. hôpitaux yëpp la du Louga du c'est pas Tivaouane rek ah. hmm. hôpitaux yëpp wax naa ko fi hôpitaux yi ci boppam moo respecté wu norme sanitaire yi ak sécuritaire yi waaw ce qui se passe à Tivaouane ñaanu ma ko yàlla nag wax naa ko fi nee naa du fi jóg hmm. parce que hôpitaux yi ci boppam ñoo respecté wu norme sécuritaire yi ak sanitaire yi installation yoo xam ne comprendre hmm. donc je pense que conséquences yi léegi nag bu conséquences yi amee ñu ne sa corps paramédical la sage-femme ak électrique sage-femme ak incendie nag madame sage-femme ci incendie léegi dañu bëggoon ñu toog foofu dee daal exemple te rawatina procès verbal bi am na lu mu wone procès verbal bi nee na sage femme yi nañ ñaari lii ah, le temps est bëriwul luñ koy wax ah no duñ ko wax nañ génn procès verbal yi hmm. duñ ko génn de nañ ko génne sage femme yi ñaari liir au cours de la route le liir yi décédé lan moo tax duñ ko wax lan moo tax duñ ko wax xam nga tamit madame nag soyons sérieux daal ñii ay doomu jàmbur lañ ku ne da nga koy xool ci sa bopp comprendre donc je pense que ñii dañ leen war a bàyyi defuñu dara incendie la incendie. ñu lay jaajëfal bu baax a baax sëñ bi Abdoulaye Dione waaw man maa leen di sant di leen gërëm encore fois une fois di dalal bi ngeen ma dalal mhm. di sant suñu auditeurs yi ñëpp ñu leen déglu di xam ne lu fi jub rek ñu jàpp ne dooma ah, ñu jàpp ne yàlla lu fi dëng rek ñu xam ne mata di doomaa dama la daal encore une maa ngi lay gërëm di la sant